amaat mbégte ak contentement retrouver leen ci suñu plateforme sport life 221 ñu fas yéene waxtaan ak yéen tey jëmale ko sur les divers dinañu waxtaan sur la signature de Adrien Rabiot fële sa Olympique de Marseille waaye tamit bulay Dia qui a rejoint récemment la Lazio et qui est en de retrouver les couleurs une bonne option pour le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé waaye tamit dinañu wax la polémique Vinicius qui fait parler surtout en Espagne war a tamit sur la sensation la pépite catalane Lamine Yamal mu nekk les divers yi nga xamante ne moom lañ leen proposé dañ koy doora ni ak Adrien Rabiot qui a été libre après avoir terminé son contrat fële nga xamante ne moom mooy sa Juventus de Turin waaye boobu ba tey ñi ngi gis ne que des grands clubs euh, ñi ngi nekkoon si ginnaawam notamment euh, Liverpool waaye Barcelone qui a essayé d'approcher euh, ki nga xamante ne moom mooy sa mère nekk agent am pour mu signer fële nga xamante ne moom mooy FC Barcelone waaye démb euh, gis nañu ñi nga xamante ne ñoom ñooy la direction phocéenne confirmer la signature de Adrien Rabiot fële nga xamante ne moom mooy Marseille plus de 500 supporters ont réservé un accueil très chaleureux aux Français bi nga xamante ne tamit il joue un rôle très important sur le dispositif de Didier Deschamps mu nekk un coup bi nga xamante ne le club phocéen moom la réalisé après l'arrivée de Mason Greenwood l'attaquant ki nga xamante ne moom moo nekkoon FC Lens Elie Waly waaye tamit Carboni bu nekkoon Inter de Milan signé sous forme de prêt vient s'ajouter la signature de Adrien Rabiot mu nekk un pois très important et aussi ñu ngi leen di fàttali ni que Hoiberg bi nekkoon Tottenham moom tamit signé na fële nga xamante ne moom mooy Olympique de Marseille donc Marseille réalisé na un très gros coup sur ce mercato après l'arrivée libre de Adrien Rabiot qui signe pour un contrat de deux ans dañuy continuer tamit dem fa fële nga xamante ne moom mooy Italie Boulaye Dia qui est en train de retrouver ses couleurs après avec sa direction euh, Salernitana euh, Salernitana jël nañu Boulaye ja abal ko Lazio de Rome le Sénégalais totalise actuellement deux buts à son compteur sur les rencontres yi nga xamante ne euh, moom la joué démb à la quatrième minute dugal na premier but wu Lazio de Rome et aussi je pense que il est en train de faire taire les critiques yi nga xamante ne naam ñu bëri ñi ngi ko doon sous-estimer mu nekk tamit joueur boo xamante ne il va faire du bien au coach de l'équipe nationale du Sénégal après les sorties yi nga xamante ne euh, jotoon na ko euh, manqué dañuy continuer wax tamit sur la polémique Vinicius Junior démb bërki démb match bi amoon diggante Real Sociedad ak Real de Madrid Vinicius Junior euh, dugal na but waaye mu am coow bi nga xamante ne jugoon na après geste bi nga xamante ne def na ko waaye bi match bi jeexee gis nañu son entraîneur Carlo Ancelotti et aussi le capitaine de la Casablanca Carvajal ñëw défense du joueur ce qu'il faut retenir ce qu'il faut savoir mooy Vinicius Junior dafa nekk joueur boo xamante ne tàmm na di jot ay insultes racistes waaye tamit des cris de singe lors de certaines rencontres loolu moo tax bi mu dugalee but mu génnee benn geste jël loxoom taf ko ci gémmiñam pour fair taire les critiques donc gis nañu tamit la direction merengue nekk autour du joueur euh, pour prendre sa défense di leen fàtte ni tamit Vinicius Junior euh, fait partie des potentiels pour jël li nga xamante ne moom mooy le ballon d'or actuellement il a été saisi il, a été nommé euh, meilleur joueur Euh, de l'UEFA si Champions League bi nga xamante ne moom moo amoon daaw donc mu nekk des rumeurs yi nga xamante ne mu ngi doon circuler boobu ba tey dinañ leen toppal information bi jëmale ko sur li nga xamante ne moom mooy les ballons d'or dañuy wëy tamit waxtaan sur la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, il a fait une saison très très exceptionnelle lors de l'exercice 2023-2024. Fin de saison, bi gis nañu nous joué avec la Roja, nek champion d'Europe. nañu le président du club, Momitami Juan Laporta, génn yëkkati ay kaddu sur le joueur. Nous wax que Lamine mi ngi touché un salaire de 1,5 million d'euros par année, salaire bo xamantene am na solo trop. surtout sur un joueur bi nga xamante ne il n'a que 17 ans waaye pour blinder son joueur waaye et aussi pour le satisfaire Laporta nee na daf koy yokkal saleeram surtout pour mettre en avant tey jii rôle bi nga xamante ne euh, Lamine Yamal mi ngi koy jouer au sein euh, du FC Barcelone donc mu nekk joueur bi nga xamante ne tamit il est très apprécié surtout en équipe nationale La Roja donc mu nekk information yi nga xamante ne moom lañ leen dëgtaloon fas yéene waxtaan ak yéen tout le temps jëmale ko sur lépp luy jëm si wàllum actualité sportive ñi leen di wax ngeen wéy di abonné di ñu suivre si suñu plateforme Sport Life 221 di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf